bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil aalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahumma callimna maa yanfacuna wanfaanaa bimaa allamtanaa wa zidnaa ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur ginnaaw buñ santee buur yàlla subhaanahu wa taala noo ngi julli ci sang bu tett bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam réew mi fm 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé mbokk yi yéen a ngi fàttaliku woon keroog buñ doon taxawandek yéen ci buntu bañ daan waxtaan ñoo ngi taxawoon ci njàngum alquran bi nga xamante ne borom bi tabaraka wa daka dakaa yénkeewal doomu aadama bi waaye yow mi jàng alqur'aan ana wan màndarga la alqur'aan di am ci yow ba tax na tey inchaa allah bi iznillahi subhaanahu wa taala ñu wara a jokk buntu boobu beneen buntu bu bees ñuy ñaan yàlla buur bi tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana yal nañu yàlla boole defal dégg ak topp amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot naa di leen fàttali ne rek buur bi tabaraka wa taala bokk na ci xéewal yam ñu xéewalal mu defal ñu nelaw mu nekk dallukaay ci ñun ndax loolu lañu wax ci alquran ci suratu naba wa na ja'alna nawmakum subata wa ja'alna nawmakum subatan mooy buur bi yàlla tabaaraka moo ñu ne xéwal ju mel ni nelaw man yàlla maa leen ko tàggatal maa leen ko créel jox leen ko kom cadeau ngeen di ci dalloo imaginel bu fekkente ne yàlla joxuñ nelaw ngir ñu du ci dalloo ana fan lañuy am dallukaay bu mel ni lañuy am ci nelaw tontu bi mooy du mun a nekk ndax duñ ko mun a créer suñu bopp kon ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem ci doomu aadama bi walla ci mbindaafoonam yi mu daal di ñu créer li nga xamante ne mooy nelaw kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma yàlla doyloo yónni ko ci xeet wi yonent boobu la yàlla xamal képp ku yàlla wërsëgal nga jëfandikoo xéwal ba ñu naan nelaw te mu ne ñu ci alquraanul karim wa jaalna maa leen defal nawmakum nelaw ba ngeen di nelaw subaatan mu nekk dallukaay ba ngeen di dalloo ci dallu ba ngeen di am ci nelaw munu leen koo am ci leneen lu dul ci nelaw ba tax na sax am na yenn béréb yi nga xamante ni képp ku fa bëgg dallu ngir nelaw dangay fay tellement nelaw nu mu amee importance dundu doomu aadama yàlla mi la ko créel mu jox la ko gratuitement free free gift ko naka anglais di waxe mu jox la ko majjaanan mu jox la ko bi duuni nga di ko fay mu jox la ko ndax moo la ko xéewalal léegi ku mel ni man mu tabax néeg mu ne képp ko fi war a dugg ngir dallu pour nelaw dangay ngay fay moo ne yàlla mu bind nelaw kooku fayeeku la ngir nga fay ko léegi yow nga dem tabax sa béréb nga ne képp ku fi dugg di dallu di nelaw day fay ah loolu buñ ko seetee war naa doy waar waaye nag li mën a nekk la tamit tellement lañ fi bëgg a wax mooy nelaw ni mu amee important si dundu doomu aadama gis nañ ku ñàkk nelaw ni muy mel gis nañ ku ñàkk nelaw na muy nekkee waaye gis nañ ne ku ñàkk nelaw day feeñ ci màndargay doxalinaam su ko defee day doon nit ku xaw a matadi kon nelaw boobu yàlla xéewalal doomu aadama yi ngir ñu di ko def mu def ko mu doon dallukaay ci ñoom wallaahi bu fekkente ne woon nelaw daldi marsandiis ba ñuy jënd pauvre yi duñ si jot ñu ñàkkañ yi duñ si jot ndax ña yàlla jox koom-koom ñooy jënd nelaw bu doy sëkk sëkk sëkk ba tax na pauvre bi du si jot ku mel ni man du si jot ndax doo am loo koy jënde doo am loo koy jëndee prix bu ñu koy jaay day fekk loolu nekkul ci sa poos waaye maandu yàlla mbaaxu yàlla matale yàlla ci jaamaam yi walla ci mbindaafuunaam yi mu def nelaw mu doon lu ñëpp di aajo waaye lu ñëpp di bokk di def na ko góor di defe noonu la jigéen di nelawe na góor di nelawe noonu la jigéen di nelawe noonu la mag di nelawe noonu la gone di nelawe noonu ngay déggee ne ki woomle nu muy nelawe ki ñàkk noonu lay nelawe su ko defee nelaw mu doon lañu yàlla jox comme kado ngir ñu di ci dalloo yonent bi sallallahu alayhi wa ne la yow jullit bi xéewal boobu yàlla jox mu doon kado te mooy nelaw nee na boo jógee ko ci nelaw boobu na delloo yalla njukkal na sant ndax moo la ko baaxee bu dee dalaa bàyyeeg sa sago rek ngir nga xool noy créer nelaw man dama xamut foo koy jëlee ak noo koy xalaatee inspiration bi sax noo koy xalaatee bay créer nelaw waaw ñun lu ñu gis te ñu xam ko mooy yàlla moo ñu jox kado bi ñu naan nawum mooy nelaw waaye ñun ñoo créé fu ñu koy defee ak ci matériel yañ koy defee créé nañu néeg ba ñuy nelawee loolu di benn créé nañu la nga xamante ne moom lañ fay dugal ngir bu ñuy nelaw dara ba ñu ñoo lor loolu di ñaar ñetteel bi ñu créé laa xamante ne ci kaw loolu lañuy jëfandikoo jamono bu ñuy nelaw mooy lal di éponge di matelas di basan ak xeeti yi ko nga dégg ci njegenaay ak darab mbàjj ak xeeti yi ko loolu doomu aadama bi moo ko créé ngir na muy nelawee mu doon lu mucc ayib waaye nelaw ci boppam loolu kerewo ko fa koy defee ak nam koy defee ak foofu na mel lay géema décorer ngir foofu mu mucc ayib te loolu mu def foofu rafet njortu dong la am ci ne loolu mooy lay neexal nelaw bi walla la koy sobe ci nelaw waaye amul dara lu ko ci wóor ba tax na yonent bi sallallahu alayhi ne boo jógee koo ci nelaw boobu na nga sant yàlla ne alhamdulillahi mboolem xeetu cant yi ñeel nañu yàlla alladi buur bi nga xamante ne ahyaana moo ma may ma nelaw mu jël sama ruux ci jamono bi ma doon nelaw ma dara dégguma dara xamuma dara jamono bi ma doon jëfandikoo xéewal bu ñu naan nelaw xawma woon dara dégguma woon dara ba na gannaaw bu ma delloowee sama ruux mu may ma beneen occasion xéewal ngir ma ximbaliku jóge ko ci nelaw boobu kon mboolem xeetu cant ñeel na la yow yàlla ndax yaa ma nelawuloo yaa ma may ma yeewu ci nelaw te bu ma faatoo duma dem ci kenn duma dem fenn fu dut fa yow yàlla moo tax nga déggee ñaan wi jeexee wa ilayhi nushur kon ñaan wi dañ ko wardi baamu saa su ne lañ doon def ci waxtu su niiw ci ginnaaw mooy nelaw di andamu kon bu ñu yàlla wërsëgalee mu delloo ñu suñu ruux ba ñu amaat beneen occasion dundaat war nañ kaa sant ne ko alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur ñu daldi duggee noonu ci suñu bés bi nga xamante ne bés boobu la ñu yàlla wërsëgal ñu war a dund weneen dund ba tax na bés boobu ngay dund boroom xam-xam su mag di xasanul basri rahimahullah mu di wax ak yow doomu aadama bi mu ne la xamal ne li la fi tax a mooy bés ya ngay dund moo tax mu ne la ibnu aadam innama anta ayyaamun kullama zahaba yowmun zahaba baaduk yow doomu aadama wi xamal ne de li la fi tax a nekk li la fi mooy bis yay ñëw di jaar di jàll di dem ba tax na na nga bàyyi sa xel kullama zahaba yawmun bépp bés bu ñu jaar jàll xamal ne zahaba baaduk am na lu mu yóbbaale ci sa dund dootu ko andi bés boobu dootu delsi ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa mu daal di ñu baaxe ci la nga xamante ne mooy xadis ba nga xamante ne moom lañ fas yéene toftal ci la nga xamante ne mooy ñaan bi walla mooy waxu boroom xam-xam bi di xasanul basri rahimahullahu taala rahmatan waasia yan nañu ko yàlla fayal yan na ko buur yalla yërëm yërëmande su yaatu amin ya rabbal alamin mbokk yi wax bi beneen kàddu la mu jóge ko ci boroom xam-xam su mag di al imam ibnu taymiya rahimahullah al imam ibnu taymiya rahimahullahu nee na moo tax mu ne qaala al imam ibnu taymiya rahimahullah inna al insaanu ida qaraa al qur'aana wa tadabbaruhu kaana zaalika min aqwa al asbaabi al maaniatu lahu min wuquuci fi l macaasi majmuul fathu fatawa majmuul fatawa naam mbokk yi boroom xam-xam su mag di ibnu taymiya rahimahullah nee na al insaanu doomu aadama bi de rawatina julit bi ida qara al bu dee dafa jàng al quraan ba noppi wa tadabbarahu mu daldi ko settantal di bàyyi xel di géem a góor-góorlu di jëfe la aaya digle di géem a góor-góorlu di sore la aaya tere nee kaana daalika loolu muy settantal aaya alqur'aani ba tax na muy tënk boppam ci ndigli yi waaye muy géema sore tere yi nee na loolu mu nekkee loolu day nekk ci moom min aqwal asbaab ay sabab yu dëgër sabab yu am kàttan al maaniati lahu day doon sabab yu koy ñàkk min wuquil fil maashi ngir mu tàbbi ci ay moy yàlla walla mu tàbbi ci ay ñaawteef mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot boroom xam-xam su mag ki ñu naan ibnu taymiya rahimahullah moo ñu baaxee ne ñu jullit bi bu dee dafa jàng alqur'aan la mu jàng ci alqur'aan mu bari ka niiw mu daldi ko settantal settantal bi mu jublu ci mu géem a tënk boppam ci mboolem digle yàkko aaya yi digal waaye mu géema sore ci lépp la nga xamante ne xeetu tere lañu nee na jullit bi jàng alquran ba noppi mu di ko settantal ci anam wi boroom xam-xam bi de ibnu taymiya nee na kaana dalika min aqwal asbaab loolu day doon sabab jakoy ñag sabab jakoy protéger sabab jakoy aar kaaraange ju am doole ngir mu bañ a tàbbi ci xeetu mooy yàlla yi ñu war a mën a déggee ci maanaa aaya bi bu fekkente ne kenn ci pencum jullit ñi walla kenn ci kuréelu jullit ñi jàng na alquran ñu dayloo aaya ba ñuy joxe comme misaal ci suratul bayyina walla ñaari aaya ca suuratul bayyina dañuy joxe misaal ca suratul bayyina borom bi ne wama umiru illa li yacbudullaha muxlisina lahu diin diglewuma dara lu dul ngeen jaamu man yàlla wéetal ma ci sama nguur wéetal ma ci samay tur wéetal ma ci samay melokaan waaye ngeen jaamu tamit jaamu bi nga xamante ni day ànd ak cellaange ngeen sellal jaamu ba ngeen may jaamu déggatal bañ ciy nekk ngistal bañ ciy nekk ak xeet ya ko moo tax mu ne wamaa umiru diglewu ma leen dara illaa li yaabudullaha lu dul ngeen jaamu ma man yàlla waaye jaamu yàlla bi na ànd ak ngeen sellal ko lahu diin te ngeen defee ko diine bu mu jox ndawam di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen tënk seen bopp ci diine woowee moone ku jàng aaya bi settantal aaya bi xam maanaa aaya bi yow doo fi nekk di jaamu yàlla di ko bokkaaleeg dara ñaareel bi doo nekk di jaamu yàlla di ko def si ngistal ndax day fekk ne jàng nga aaya bi xam nga aaya bi xam nga la aaya bi di firi digam yàlla moolane la ne wa maa umiru diglewu leen dara lu dul illaa li yaabudullaha ngeen jaamu yàlla ngeen wéetal ko ci jaamu ngeen màggal ko ci jaamu ngeen defee ko comme na ko yonent bi jàngalee te ngeen sellal ko moo tax mu ne muxlisiina lahu diin jaamu leen loolu la leen yàlla digal jaamu yàlla ba ngeen di def na ngeen ko sellal ngir moom dong kot rekk waaw ñu gis la nanga nga sellal sa jaamu yàlla ñu bañ laa gis nanga nga sellal sa jaamu yàlla boroom xam-xam bi nee na képp ku jàng alquran nga di ko settantal ci wi anam nee na loolu day doon ñakk protège bu am doole la lay taxa bañ a ci ay moy yàlla ñaareelu aaya bi lañu war a joxe comme misaal mooy doy na rekk yàlla suñu boroom tabaraka wa taala ne inna alladina aamanu wa amilu saalihaat ulaika hum xayrul bariya nee na ñi nga xamante ne dañoo gëm yàlla wéetal yàlla ci nguuram am pas-pasu tawxiid ci seen xol ñu toftal ci ngoom yàlla boobu jëf ju baax yàlla nee na ñooñu melokaan melokaan wii ñooñu mel wii melokaan ñooñu ñoo am résultat bu rafet ñooñu la seen mujjanteel rafet aaya bi képp ku ko jàng nga déggee ko nii nga settantal alquran ba xam aaya bi lamuy wax nga déggee ko noonu tënk sa bopp ci loolu xamal ne képp kuy jëfandikoo aaya alquran anam bi boroom xam-xam bi wax ne képp ku jàng alquran di ko settantal day doon lalay ñag day doon lalay aar kaaraangi ju am doole ba nga bañ a ci ay xeetu moyal moone xanaa lii war nañ ci déggee ne képp ku jàng alquran ba noppi ñu di ko dégg ci ay ñaawteef kooku dañu naan settantalul aaya yi déggul aaya xamul la aaya yi di tekki wa illaa xam na dégg na leen daa topp banneexu ba kenam waaye nag li ci gën a bëri mooy ñàkk dégg maanaa aaya yi ñàkk dégg la aaya alquraan yi di tekki muy yóbbee lenn ci jàngkatu alquraan ñuy tàbbi ci lu ñaw waaye boroom xam-xam bi di ibnu taymiya rahimahullah moom daal la mu wax mooy doomu aadama bi bu jàngee alquraan ba mu settantal aaya xam ya aaya yi di tekki nee loolu mu nekkee day doon ñag la koy day doon sabab la aar kaaraange ju am doole ngir mu bañ a tàbbi ci ñaawte fi noonu la ñuy déggee maana waxu boroom xam-xam bi di ibnu taymiya rahimahullahu rahmatan waasia yan nañ ko yàlla fayal mbokk yi ba léegi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun fii ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar yal na ñu yàlla boole defal dégg topp yal na ñu yàlla boole defal muñ ngir ñu bañ a tàbbi ci lu ñaaw ba tax na moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi la baaxe yow doomu aadama bi ñaax la ngir nga war a mën a settantal aaya alquraan ya nga xamante ne moom la suñu borom tabaraka wa taala yenkeewal jëmmam jooju ngir mu andil ñu alquraanul karim ñu di ko settantal di ko bàyyi xel ba tax na alquran boobu mu jox yonent bi sallallahu alayhi wa bu ñu demee xool ci suratul anbiya dinañ fa fekk borom bi tabaraka wa taala di wax yonent bi ne alquran bi ma jox nii ak jëmm ji ko jox nii di sa jëmm ju sell bi yow rasulullah du lenn lu du xéewal kon ñu déggee ci ne ñaari xéwal la yàlla buur bi tabaraka wa taala jox yonent bi ak xeetam kom kado ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xeeti yonent bi xéwal la ci xeetam waaye alquran ba ko yàlla jox alquran bi tamit da di xéwal ci xeetam sallallahu alayhi wa moo tax bu ñu demee xool ca suuratul anbiya dinañ fa fekk aaya ba yàlla di wax yonent bi ne wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin yow sama ndaw bi yow sama yonent bi yónni bi ci sama jaam yi du lenn du dara lu dul nga doon yërmande ñeel leen yow sama ndaw bi yow mi ma tànn ci sama mbindaafoon ma yónni la ci sama mbindaafoon yi defuma ko dara dara taxul ma def ko lu nga doon yërmande ñeel mboolem mbindaafoon yi sallallahu alayhi wa sallam yónni bi ko yàlla yónni tànn bi ko yàlla tànn ngir mu nekk ndawam da di yërmande ñeel mboolem mbindaafoonu yàlla kon yërmande la yonent bi fees dell ñu wàccee ci moom téere bu fees ak yërmande ñu wax ci biir téere woowu ne yónni bañ la yónni du dara du lenn lu nga doon yërmande ñeel mboolem mbindaafooni bu ñu mboolem mbindaafooni nag mala yeeg rab yeeg njanaaw yi ñépp ci lañu la koy firndel yërmande ba yàlla ne yónni bu mu yónni ndawam di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa da di yërmande ñeen bi ndaafoo ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam na loolu ci xadis bu wér nee na ci maanaa xadis yow mi bëgg jëfandikoo gàtt yow mu bëgg jëfandikoo njanaaw waaye na nga waajalal sa bopp na waajalal jumtuwaay ba nga koy defare na ko daas ba mu ñaw te na nga gaaw ngir mu gaawa a noppaleku bu fa nekk di raay-raayal bu fa nekk di ñàdd di dem ak a bu fa nekk di ko def anam bu yéex doo tàqale kook la ngay def moom it du tàqale koo coono ba mu nekkee sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu yépp bu ko kenn def ci yéen képp ko bëgg defar gàtt nga bëgg a defar sa xar walla sa bey wala sa ginaar wala moo xam nee na na nga daas jumtuwaay ba koy defaree ba mu ñaw te nga gaaw ci defarin bi ngir mu tàqale kook mitit bi ci ni mu gën a gaawee naa kii moo am yërmande ci mbindaafoonu yàlla yi waaw waaw kii dong am yërmande ci mbindaafoonu yàlla yi sallallahu alayhi wa sallam kon la tax yàlla ko dama yónni ci sama mbindaafoon yi ngir nga doon yërmande ñeel leen moom it mu ñëw firnde ko ci xadis bi nga xamante ne dane képp ko bëgg defar gàtt moo xam xar la moo xam béy la moo xam nag la nee na na daas jumtuwaay boo ko nar a defaree na ko daas ba mu ñaw boo ci noppee na nga géem a takk sa fit góor-góorlu gaawalantu la nga nekkee ngir nga gaaw ci jóge ko nga gaaw ci pare moom it mu gaaw noppale ko ci mettit ba mu nekke loolu yépp waxu ko ci lenn lu dul yërmande ba mu am ci mbindaafoonu yàlla yi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi waxtaan wi jeexul dañoo yegsi fu ñu war a yëkkatee jotaay bi nar a jébbal bërëb bi ña war a joxe xibaar ci nasaraan ni ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu dégg ak topp jaalana allahu wa iyaakum min alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa wulaata umuurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'aani alcadiim wa nafani illahu wa iyaakum bima fihi min al ayaati wa dikri al hakim aqulu ma tasmaun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu